ci déception am ci déception rek wax dëgg yàlla ci euh, boo xamee ñi nga amal affaire ngay dénoncer toujours loo xam lu jaaduwul la am fenn foo féete am na loo xam bul ko nangu mukk bu ci musa mukk nangoo dugg jamais au plus grand jamais parce que daf lay wóor ni yow li ngay dugg boo ratee penalty boo ko ratee du la jikk donc moo tax mu ñoom jum nañu ñeneen ñu mel ni ñoom dañuy fexe fi ñuy teg seen tànk mu leer. parce que dafa am combat bu ñu nekk boo xam ni nguur du ko accepter ay activistes lañu woowee seen bopp xeexuñu sànniwuñu xeer tojuñu fenn mais dañuy taxaw pour défendre population bi. dem ba yàlla may leen ci oraa ñu am ci kàddu ñu reconnaître leen fii ak bitim réew. donc am na yenn yoo xam ni bu ñu ko nangu mukk di ci dugg. te loolu doy lu dong moo leen ci mën a génne parce que boo amee affaire ñu am doole. ami pexe. te nanguwuñu ku leen ku leen critiquer yow tam da ngay waajal sa bopp. ci doy loolu nga am. kon mais mais nag bi ñu leen di tudd. dañ leen tuddandoo ak ay député. Mm. c'est vrai que député am na procédure bi muy jaar mais sénégalais war ñu xam. est-ce que activé nañu dossier bi ñoo ñu tudd fan la seeni ay dossier toll donte dañuy dem assemblée nationale. Mhm. parce que jàpp nañu ñu duñu ay député. Mhm. mais ñeneen ñi ay député nañ leen jàppale ah. même même bu dee sax euh, faw ñu fàttali ne euh, ñaari mbir yooyu bokkuñu ñu Haj Mansour daan ko gën a yaatal mais Dimet est-ce que aujourd'hui euh, booy dugg ci combat yu ci mel nii di xeex ak sa askan est-ce que jotul ñi nga xam ne ñoo ciy tàbbi di xam nu nuy taxawee ak nu nuy jëfee par rapport ak même crédibilité seen i kaddu ak seen i seen i xeex. absolument Mohamed xam nga xeex nguur dafa metti dafa doy donc lépp lu mu mën a am ci yow rek da koy exploiter mm-hmm. donc euh, tudd nañ leen ci coowal euh, trafic de passeport diplomatique ak yu mel mm-hmm. donc man dama ñaan rek yoon def liggéeyam ñu topp ko ba mu sës parce que accusation la enquête la teg nañ leen loxo mais tey comme ni nga ko waxee rek mm-hmm. euh, xam nga mbirum aji saar sonk aussi tamit nii la xawoon demee parce que ñu bëri dañu jàppoon ni Ousmane Sonko dañ ko complot mais bañ demee ba ci aussi tamit moom Sonko def déclaration wax ni mës na dem salon ba déjà am na ñu bëri ñu jàpp ni il a été imprudent parce que yenn combat yi boo ci dugg nga xam ne chaque jour da ngay fitnaal pouvoir doo ko may dara donc moom it lu ndaw lu mu am ci yow da koy exploiter donc xëy na dañu manqué de prudence ak tamit en attendant que aussi tamit ñu leen di setal parce que tamit dëgg yàlla tamit mënuñu euh, jël faxas teg fële mhm. li ñuy wax présomption d'innocence mais encore une fois man li ma bëgg rek mooy vraiment na enquête bi leer mhm. ku kuñ ci taq ku ci taq na yoon def liggéeyam. Mhm. mais ngi laay war a suuri aussi ku ci taxul tamit dañ la setal ba nga set wecc mi ngi noonu l'enquête bi kon mi ngi wéy jamono ji ci euh, loxoy euh, division des investigations criminelles